évidemment comme beaucoup d'autres structures lan mooy situation bi dëggantaan ci ni ngeen di mënee seen combat par rapport ak combat politique bi combat citoyen bi ak euh, nekk ci école bi. voilà merci Alassane je pense euh, am na question boo posé aussi ah. au mhm. bu am solo. mu jëm ci li nga laaj est-ce que tey école bi mën nañ ko préserver ci crise bi. Mhm. question boobu dama foog ne même chaque famille d'acteurs. war nañ ci répondre parce que dafa am solo globalement voilà mu ngi nii à l'écran mooy thème oh, man li may njëkk fàttali rek mooy hmm. dafa am benn premier ministre français bu wax wax bu rëy te man fu ma toog dama koy wax mu ne lekkool est le berceau de la république hmm. mu ne lekkool est le berceau de la république école mooy cëslaayu askan wi jeex na wax jooju boo ko jëlee rek mooy amul lu ñu mën a def ci askan wi te intéressé wul école du am impact ci école ñun ñi ñëpp toog fii kan moo tax ñu toog fii du école. Mhm. lan la ñu mën a jël tey lu ñuy def loo xam du impacté école wala loo xam ne tamit du école la koy produire amul donc foofu laay rappeler que ne beneen euh, approche bu may dugalaat nañu dellu ci statistique yii passé ANSD dañu wax ne Sénégal am na 18 millions d'habitants du moom la ñu wax 18 millions yooyu demal nga xool statistiques yi par tranche d'âge ak pourcentage kon boo ko jàngatee da lay won ne soo ko jëlee du préscolaire à l'université 18 millions yooyu plus de la moitié lu ëpp presque douze million mais ñoo ngi foofu ñoom la waaw léegi askan woo xam ne 18 la maanaam mun nañu wax ne presque 12 millions yi ñu ngi école ñu ne noo dafa am ay questions yu leen dul concerné kooku beneen question la bu may munta ne lu ñu fi laal rek day intéresser tous les acteurs beneen élément bu ma si yokk mais c'est l'historique xam nga toujours les rappels historiques dafa am solo nañ def rappel historique boo jëlee déjà depuis le vote de la loi cadre en 1956 di nga xool le rôle que les syndicats ont joué dans la construction de ce pays-là accompagner le président Mamadou Dia moom si boppam après le vote de la loi moo waxoon ne moom il compte sur ses alliés et les syndicats pour doxal réew mi d'ailleurs après dafa mujj am crise sax à partir de 57 ba 1960 parce que par rapport à l'orientation de la politique de développement déggoowuñ si syndicalistes dañ jàppoon ne il fallait orienter ces politiques là vers la prise en charge maanaam jël yi tey liggéeykat yi moom da doon xool askan bi loolu moo indi ay problème ba ñëw ba 1962 euh, mu am beneen problème nga jëlaat tey toujours ci historique boobu en 1968 crise bi amoon fu mu jógee révolte estudiantine révolte estudiantine fu mu mujjee crise politique la mujjee nga jógee 1968 nga remonter encore ñu dem 1988 lan moo amoon année blanche fu mu jógee woon ban crise la woon crise politique conséquence année blanche tëjuñu école yi lan moo taxoon c'était une crise politique ñëpp ngi rappelé wu bëgguma dugg ci détail yi parce que on n'a pas trop de temps. nga yëpp remonté encore 1993 94 lan moo amoon. année électorale la woon aussi. année électorale encore. Mm-hmm. année électorale moo bindoo noonu. lan moo amoon année électorale encore à cause de ces acteurs politiques la encore te tëjuñu université bi année invalide ñëpp perdre benn année encore kooku du deuxième conséquence alors donc remontée historique boobu may def pour ñit ñi tamit bàyyi seen xel. ci li xew ci réew mi te ñu xam ne anne électorale dafa am lu mu bindoo. te acteurs politiques yi ñooy jaxase ma continuer ça fi may terminer mooy. Uh-huh. oui c'est important ci fi nga nekkoon noonu. Mm-hmm. accusation boobu c'est envers les politiques wala envers les acteurs de l'éducation ñan ñoo wàcc seen ànd. mais très bien xam nga en fait seen politique ci bi wala. xam nga man fi ma déparé ne la Alassane ne la mm-hmm. l'école est le berceau de la République. Mm-hmm. kon ànd bi benn la maanaam amul looy def lu dul laal école donc. fi may jeexale sax di nga gën a comprendre bi ñu demee en 2000 mars 2021 lu xew Sénégal nit ñaa ngi woon ci école yi di jàng mais da ngay xool ne crise encore politique boo xam ne acteur politique yi ñoo ko créé mu fekk siwaat waat école bi ñu demaat ci la crise de juin 2022 ba ñu taal université bi dem lakk plus d'une cinquantaine d'écoles presque à Ziguinchor ku ko def acteur politiques yi encore seen ay dérives moo ñëwaat fekk ci école bi mais loolu moo tax tamit bii encore da ngay xoolaat lan la la charte fondamentale ñu koy wax laa constitution jàngal xale yi ne lii moom mooy cëslaayu réew mi maanaam mooy li nga xam ne kenn du ko fowee dem jàngal leen ne kenn du ko jalgati danga koy fonk ah moom mooy maanaam symbole bi gën a rëy ci réew mi ñu yeewu nit jalgati ko te kooku tamit nekk boo demee di liir tey la constitution article 6 daf lay sital ñan ñooy les institutions mu ne mu ne mu sital le président de la république ne institution la te dañ koy jox cër boobu institution la mu waat yeneen institution yi même conseil constitutionnel bi ñuy wax ni dañ ko cité foofu article 6 constitution ne bokk na ci institution yi mais ñooñu tey seen biir ñu bëgg leen indi ci benn niveau bu nga xam ne tey peut-être mais euh, da ngay mujj di laaj fan la ñu ne Mhm. léegi nag dans tout ça. oui place su école tey comme li may wax mais mooy seet naka la ñuy defee ba préserver suñu école effectivement dama ànd ne dañu war a préserver école mais naka lañ koy préserver alors foofu nag la stratégie di wuute. ñenn ñi dañu jàpp ne. <laughs> alors école dafa war a toog fële xaar déedéet <laughs> fii xam nga lu fi am. boo bëree ñu dal sa kaw boo bëreewul ñu bëree dal sa kaw nga daanu kon léegi xam nga nooy def mais c'est stratégie préventive kon ñun. dañu jàpp ne acteur u école yi bu ñu gisee de acteur politiques yi si nañ ci ay dérives ba dëkk bi jàmm amatu fi crise am na amatuñu maanaam dal gi ñu fi soxla woon fitna jóg na ñun nag en tant que syndicat acteur de la société civile dañuy jóg ne leen déet taxaw leen dañ leen di arrêté fi mu toll nii. loolu mooy stratégie xëy na peut-être laaj laaj yu ñu nar a ñëw ci kanam mooy mbaadu acteur communauté éducative boobu. Mhm.